del soit nañu yéen seen jotaayu daara ji ñu tudde tafsirul quran ngeen ci ànd ak seen mbokk daara Abdullahi Gaye mu leen di nuyu bu baax nag di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen ko baal dellu rek di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu jaamu yàlla def ñu dëggi dëggi jullit sàmmal ñu suñu imaan ba mu bëj a rëcc ba bu ñu demee ci moom mu bég ci ñun ñu bég ci moom suñu borom macha allah ñu ngi woon ak yéen seen saar bu solo bi di suratu Hud saar bii nag toujours ma leen di defal benn rappel rek ni bu ñu fàtte mukk la ma leen waxoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni shayyabat nii huudun wa axawaatuha nee na saar bii di suratu huud moom a tax a bijaaw te sama âge bi bijaaw jotul ak i mbokkam muy suratul waaqia suratul xaqa suratu naba'i ak isa shamsu ku wiiral ak kem yooyu saar yooyu nga xam ni day nekk ci mashahidu yowm al qiyam moom la sallallahu alayhi wa sallam ni soo leen boolee yooyu ñoo tax ma stressé wu ba bijaaw bu leen fàtte mukk loolu ci biir saar bi tey jii macha allahu ñu amoon quarante neuf verset tey ñu war a jël cinquantième verset ci seen saar di suratu Hud amoon nañ ci ñeent fukki aaya yu teg juróom ñeenti aaya tey ñu war a jël juróom fukkeelu aaya démb bi ñu fi mujj xam ngeen ni jeexaloon nañu histoire yonent yàlla noox xamaloon nii leen ñu ngi ñëw ci histoire yonent yàlla war a door tey jii histoire yonent yàlla Hud mi nga xam ni moom lañu ñu tuddee saar bi mooy turandoo saar bi moom Huud yàlla war a ñëw ci ay mbiram ci saar bi ay explication yi nga xamante ni moo am ci biir saar bi ak ci suratu Huud ak ci histoire Huud borom bi subhanahu wa ñëw ni la bii nag nga xam ni mooy deuxième histoire ci saar bi nuux la jiital tey mu indil la Huud borom bi ni la baada aoudu billahi min alcheytan irrajim wa ila aadin axaahum huudan nee na soo demee ca xabiila maanaam giir bi ñuy wax giiru aad nee na ñoom seen mbokk mu ñuy wax huud la yónni woon ci ñoom kon tribu ba wala giir ba moom moo tuddoon aad waaye yonent ba huud la tudd yonent yàlla huud mu foofa de yónni woon naa fa seen benn mbokk def ko yonent muy yonent yàlla Huud waaye li ma leen waxoon rek doon yonent c'est pas évident ñu gëm la it doon beneen affaire ndax tubaab day wax nul n'est prophète chez soi pour ñu gëmee la fi ngay juddoo yaroo fa màgge fa dafay jafe parfois yenn saa yi dañ dul am esprit de dépassement te du ñu jéem a comprendre ni yow lii ngay wax du yow ndax yaa ngi fi woon te daawoo ko wax soo demee bay wax loo daawul wax nag di ko wax ak ñoo daawul wax yooya war nañu xam ne am na ku nekk sa diggante loolu lu jar a bàyyi xel la mbokk yi lu am solo la ci nit ngay bàyyi xel nit kii lay wax bul jàpp ni rek fii la juddu nit ñi dañoo tàmm loolu mooy yow yow kii kañ la fi juddu ba bëgg fee waaraate ñun ngénte bërki démbam gii bu ma tax a wax te nag dañ ci yor ak mbaa doole goo xam ne parfois boo sàgganee ñu dépassé la wax la lu ñu la war a wax loolu loolu dafa jaaduwul ñi nag loolu moo doxoon seen diggante ak seen mbokk mi di Huud qaala mu ni yaa qawmi abudullah yéen sama mbokk yi dama leen a bëgg bëgg gi ma leen bëgg nag moo tax ma bëgg leen a wax lu leen di jariñ ubudullaha jaamu leen yàlla maa lakum min ilahin xayruhu amu leen beneen yàlla boo xam ni jaamu gi ngeen koy jaamu da leen di jural njariñ ñàkk gee jaamu di leen jural lor ku dul yàlla maa ngi leen di seedeel ni amu leen fi ku ngeen mën a jaamu ba tax jaamu gi ngeen koy jaamu di leen jariñ ñàkk gee jaamu di leen lor ku dul yàlla maa lakum min ilaahin xayru loolu c'est important dana nangoo ci làmmiñu suñu professeur euh, alimam ahmad dam Ndiaye macha allah yàlla yàlla sàmmal ñu ko aaral ñu ko borom douze quatorze douze treize toujours macha allah ci koor gi xam ngeen ni moo ñuy indil xikam yu am solo yooyu suñu professeur daan na def benn thème bu daan bu mu daan tudde les trois dimensions de la shahada lii nag daanaka mat na ñaar fukki at ci ginnaaw allahu akbar allahu akbar da daan expliqué ni yonent yëpp ñoo bokk kàddu gu ñuy ubbee léegi nag bu ñu ubbee li ñuy ubbee mooy unicité de Dieu la ñuy doore moo tax bu ñu ñëwee rek danaan la ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru jaamu leen yàlla amu leen beneen buur bu ngeen di jaamu jaamu nga di jariñ ñàkke jaamu nga di lor ku dul yàlla ba loolu leer suñu paree nag soo ko xool ban déviation lañ fekk seen dëkk est-ce que déviation économique la wala déviation politique la wala déviation sociale ñu jéem a faj loolu mais mënoo faj nit ñi seen dérive ak déviation yi ñu ne mënoo koo dindi ci ñoom lu dul ni danga nga fexe ba ñu am pas-pas bu dëgër ba pare awalu maa yajibu alal mukallafi tasxiixu imaanihi waaw ba pare nag summa maarifatuma soog a ñëw mu mukallaf li ko njëkk war mooy fexe ba pas-pasam bañ a yàqu gëm yàlla gëm ne yàlla rek kiit nag la war a gëm loolu mooy li njëkk a war nit ki bu loolu defarwul mënoo koo defar ci leneen sikk gi mu ne mënoo ko ci dindi c'est parce que gëmul ni gi lii mu nekk am na ay danger am na ay conséquences yu ko ci man a fekk ci kanamu boroomam kon bala ngaa fexe ba mu bàyyi yii fexeel ba mu gëm boroomam gëm gu wóor leer ba pare mu ni leen kon nag jaamu leen yàlla ni leen nag in antum illa muftaru moom nag moom dafa teel a attaqué moom moom yonent yàlla Huud xam nga yonent yàlla Nuux expliqué na moom lu baree baree baree bari ci dal di dal mais gars yi pare bàyyi ko mu wax wax ju bari ba pare mu ñu soog commencé naan ko ñun duñ la gëm danga nga defee yaa ñu gën te ay baadoola la topp te ñun duñu fekk ñoo xamante ni tekkiwu ñu dara ñuy ànd ak yow ñu lay gëm te da ngeen ñoo gënul sax ndax ñun ñoo leen gën koon gëmuñu leen xam nga explication bu gudd yooyu yëpp jaru ko moo tax gis nga Huud moom dafa ñëw ni leen ubudullah ma lakum min ilahin ghayruhu rek attaqué leen in antum illa muftaruun yéen yéen ñii <clears throat> maa ngi leen di wax ni ay soskat ngeen yii ngeen di jaamu yëpp yéen a ko sos kon moom bàyyiwul sax ba ñu attaqué ko parce que xam na ni léegi il faut mu jël beneen beneen beneen stratégie bu xaw a wuute ak bu yonent yàlla nuux waaw loolu dafay am solo dañu amoon suñu baay bu baax macha allah euh, suñu baay bu ñu daan wax baay El Hadj Doudou bu doon mag ci suñu baay dafa suñ daar bu ràññeeku la woon nag macha allah Pa Doudou Gaye ndeysaan ma ziyaare njaboot ji muy yar yëpp te jàngal leen macha allah ziyaare Hadj Doudou gay mi nga xamante ni. turandoom la di doomam di lépp nekk ak moom waaye ziyaare it macha allah alxaaji Duudu Gay mu mag ma macha allah moom it di ko ñaanal yàlla mu defaral ñu ko jàmm defal ko wér nekk ci Grand Thiès di imam alaaji Duudu Gay bee ma doon wax nag moom directeur d'école alxaaji Duudu Gay kon ma ziyaare yi ñi turandoom yépp nag macha allah dafay mënoon a yor xale bu ñu masaana indi xale bu të xale boo xam ne danaan déconné rek fu ne mu def fa dégaa bañ indi ko ci moom dañu mës a indi xale bu mel noonu nga xam ne ñëpp daan muslu ci moom ba xale ba ñëwee ñu indi ko ca daara ja mu dal dafa yegg si rek ba ñu dalal ko ba pare mu ni ñeenti mag jàpp leen ko ñu tër ko xale bi naan ko maam lu ma def mun ko damay bañ nga def mun ko damay bañ nga def comme yow def rek ngay def léegi boo defagul ñu dóor la di nga xam ne boo defee dañ lay dóoraat mun ko ah loolu de mooy leçon bu gaaw te leer ni ko bañ nga def moo tax léegi rek ma teel laa lijjanti rek comme yow dafa ko dara ñu dóor la di ngeen ni chie fii de bu yeboo ma le fii comme defuma lii fekk ma ci waaw bu ma defee nag yonent Yàlla Noox loolu la wax gars yi dafa ñëw rek xam ne ñoom comme ñoom dañuy attaqué waate mu leen in antum illa muftarun yéen ay tooñkat ngeen ñu mën a sos ngeen moo tax ngeen di jaamu leneen lu dul yàlla di jaamuy xërëm loolu ngeen di def tegu leen ko ci yoon lii la leen wax xam ni gars yi yenn saa yi boo leen attaqué mu metti mën nañ la jéem a sax pour ci suuf mu leen yaa qawmi laa asalukum alayhi ajran soxlawuma seen dërëm man xaaruma ci yéen pour ngeen fay ma li ma leen di wax na leer yéen a ngi sosal yàlla lu amul tey jaru sax kenn defe ni man lii ma bëgg discours bii ma war a tenir dinaa ko rax wala dinaa rax njar si soom yi dara duma ko rax lii mooy dëgg ndax xam leen ne laa asalukum alayhi ajran lii ma leen di wax xaaruma ci yéen pour ngeen fay ma soxlawu ma sax ngeen fay ma soxlawu ma sax ngeen fay ma ndax xam naa ni yéen mënu leen ma fay man kenn rek ma mën a fay moo ni leen in ajriya illa ala alladi fatarani man kenn képp moo ma mën a fay mooy ki ma bind sama borom rek sama borom mi nga xamante ni moo ma amal ba ma amul woon kooku rek moo ma mën a fay waaye du yéen afala taqilun yéen est-ce que yéen xanaa da ngeen dul jéem a xelu sax utiliser seen xel mi seen seen xalaat yi dee leen ko jéem a xalaat dee leen dee leen xalaat togg leen seen xel mi jéem cee xalaat est-ce que lii ngeen di jaamu xelul jël seen bant wala jël seen xeer wala jël seen statut teg naan lii mooy yàlla mais yéen loolu est-ce que xel mu rafet sax nangu loolu yéen du ngeen jéem a xalaat ñu xam ni dóor yi metti na mun leen wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum gis nga kon moom da doon souffler le chaud et le pour am li mu bëgg sama gars yi xam nga ko lay wax oh ay sama mbokk mi ay sama mbokk mi loolu euh, wax bu neex la boo xamante ni da ngay yëg ni ki am na cofeel ci yow mun leen istaghfiru rabbakum rikk waay ñëw leen ngeen jéggalu seen borom thumma tuubu ilayhi toppit ngeen tuub ci seen borom ñëw leen ngeen jéggalu yàlla te tuub su ngeen ko defee rek xam ngeen ni trois ans ngi réew mi tawul su ngeen defee loolu yursilis samaa aleykum midraaran man xam naa ni sama boroom dina dotti taw bi dina ko sotti ndox mu bari wàcc jóge ci asamaan si ñoom loolu loo cay déggee moom da na a dénk ni leen ndekete gis nga ñun bu ñu gëjee tawle lu ñuy wax dañuy wax nañuy baaw naat na góor ñi sor yére jigéen jigéen ñi sor yi caaya ñu dañuy def fi góor ñuy kondong kondongi ñii di tëgg ñii di fecc naan maam yàlla dañuy baawanaat yàlla du morom bu ñuy fooye mbokk yi yàlla du ko ñuy fooye gis nga boo amee ñàkk a gis ndox li ci gën a gaaw ci indi ko mooy tuub ak istixfaar amul leneen moom la yonent yàlla euh, Huud wax mbokkam yi ni leen su ngeen tuubee ba pare jéggalu seen boroom yursili samaa aleykum midraaran yàlla dina leen sottil ndox mu dotti ku ñëw booba trois ans go gisuñu ndox mu leen duma cee waaye wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum nee na dina leen dolli force ci force bi ngeen am dina dolli kàttan ti seen kàttan mooy lan xam nga dañoo amoon doole lool lool ba dañ daan wax man ashad minna quwwa kan moo ñu ëpp doole ñun kan moo ñu ëpp kàttan laay laaj kan moo ñu ëpp kàttan ñun loolu laa bëgg a xam moo tax mu waxoon leen ni leen a ah, yàlla de subhanahu mu taala ngeen tuubee mu defal leen loolu ba pare dolli leen doole ci seen doole ji amoon ah, kattan ci kaw kattan bi ngeen am amoon wala tatawallaw mujrimin mu ni bu leen dëddu di doon ay criminel ak ay defkatu bàkkaar nit day fexe débarrassé wu ci ay bàkkaaram bàkkaar du métier tooñ yàlla du métier kon bàyyi leen lii ngeen nekke te moytu bàkkaar yi ngeen di def loolu de la leen wax wala tatawallaw mujrimin gaa yi déglu ba mu wax yépp ñu soog koo tontu nag qaalu ñu ni ko yahud yahud yëgal ni maa jitanaa bi bayyinatin indiwoo fi dara waxoo fi dara dara dara gis ñoom dañ koo bàyyi muy wax di wax di wax lii ngeen di def bokkaale yàlla la bàyyi leen li ngeen di tooña yàlla bàyyi leen ni ngeen mel bàyyi leen wax a wax a wax bàyyi leen te man lii ma leen di wax ma leen ci fay gars yi ko waaw waaw waaw continue muy wax waaw tuub leen jéggalu leen seen borom su ngeen ko defee mu wàccee leen taw ñaan ko waaw waaw d'accord waaw après pare nga mu wax a wax ba pare ñu ne ko yaa Huud gis nga yow Huud Huud yaa yabaate yow maa ji tanaa bi bayyinati mooy waxoo fi dara jàppal ni yow jàppal ni waxoo ak ñun ñun li nga wax dara da cee amul solo leerul amul saful suukar saful yow dara nga fi waxul yow nuux yow yow huut tey nag yow tuuti nga ci bàyyiloo ñu suñu yàlla de yow xamoo sa bopp ñun wa ma nahnu bi taariki alihatina an qawlika yow boo defee nee ni yow mii yow mii judd fi barki démb boo njaay gone gu xonk cuy yaay mën a tax ñun li ñu nekkoon xam ni sila suñuy baay nekkoon xam ne suñuy baay seeni baay si lañ nekkoon suñuy maamaat ci lañ nekkoon yow defe ngeen yow da ngay ñëw rek ci benn faxas rek nga faxasal ñu li yow yaa ñàkk xam sa bopp yëgal di wama nahnu déet ñun bi taariki alihatina ñuy bàyyi suñu yàlla yi an qawlika ci sa wax ñàkk fayda ji yow hut yow yow noppalu jil ñun duñu sa morom ñun duñu moroomu gone bari nga defee ni yow da ngay ñëw wax ñu say wax rek jàpp ni gone gu xonk ci mooy ñëw naan ñu def leen lii ak bàyyi leen li Mm, yow toogil ñu gëmuñu la boo yaakaaree nag sa wax yii mooy tax ñu bàyyi suñu yàlla yii nax nga sa bopp de te sax li gën a gaaw te gën a leer wooyu wamaa maa nahnu laka bi mu'minin hóot ñu gëmuñu la pour nga doppalu xam dañ fiy nekk sax naan la indiwoo lu leer rek li ngay wax du waxi daraak ñun duñu bàyyi suñu yàlla yi xëy na ba léegi wax jooju dese na leer ci yow léegi nag pour ñun tëj wax ji wax ji fin nga xam ni moom wax ji moom bu doon benn leetre wala bu doon phrase bu ñuy bind point final la mooy jeex na mooy nax nahnu laka bi mumin ñun duñ la gëm jeex na hu demal seeti feneen wala nga waxi ñeneen ñun duñu sa moroom te sax na jeex ñun gëmuñu la say waaye sax yow gis nga yow nit daal loo ko yeddeelu ne bu yeboo nga yërëm ko waaw yow ku yebu au lieu que mu yedd la muy yërëm la ndax ñun xam nañ ni danga nga am problème xamul sa problème in naqulu illa ataraka baadu alihatina bi suin xam na ni suñu yàlla yi ñoo la gaaral maanaam wax jur ju tegginiwul gii ngay wax suñu yàlla yi ñoom ñoola la lu bon maanaam ay ay ay ay ñoo seen martaba ci misaal moo dal sa kaw maanaam seen àq ñoom yàlla nga tàngal seen xol ba ñu def la li ñu la def moo tax nga mel ni ku yi di wax sa wax ju bari ji yow Hud yow loolooy sa problème yow léegi problème mu bopp nga am li ko waral nag mooy da ngaa laal laalaake Hud da ngaa laal lu sa yoon nekkul laal yàlla yoo xam ne ñoo fi masa ne mer gi ñu mer nag moo tax yow ñu gaaral la li dal lu bon li la dal loolu la ko yóbbee kon yow wax dëgg yàlla bu ñu bu yóbbu sax ñu féex yow ku la ku la fi nekk di yedd na la ko mi te xam ne yow yàqu nga ba pare allahu akbar waaye dégg lim leen tontu bokki qaala mun leen inni ushidu llaha gis nga ne wu waaw yi ngeen di wax bu leen moom daf di maa ngi maa ngi séedeloo yàlla ci lii may bëgg wax benn washhadu anni bari'un mimma tushrikun di leen séedeloo yéen it ngeen fekk ngeen séede ni mu leer ci seen bopp yi ni man ku deñ laa deñ bari'un mooy ku deñ loolu expression arabe la yenn saa yi mbir xew nga bëgg ci dugg taqal nit mu ni ana bari'un ka at dhi'bi min dabib ni yaqub loolu waxinu arabe la mooy lii ñu ma bëgg a taqal set naa ci wicc comme ni till ga sete woon ci dereetu doomu yàquba ba muy gaaya ba ñu rey ba ñu ba sànkee yuusufa ba pare ñëw ni baayam till gee ko lekk till ga na mu setale boppam ba ñu xam ne du ca lenn arab dalay waxe noonu loolu bu la ko mooy lii ñu may tax def taqewuma ci laalewuma ci loolu mooy moo expression boobu mu ni leen maa ngi seedeel sama borom di leen seedeel yéen te seede leen ni man ku denc lii ngeen di bokkaale min duni wala sama borom loolu moom xam leen ko di amu ci droit mukk wax jaakaar ni man dinaa leen ànd ak yéen wala dinaa nangu seen caaxaan yi ngeen ne benn comme nag dañ ko doon jéem a napp yooyu di ko brutaliser ak di ko jéem a menacer ak di ko tiital parce que gars yi it aussi ñett la ñu yor de kilifa gi gars yi ñett la yor soo ñëwee di wax eh, yàlla nee na mu leer seen bopp njalbeen gi njalbeen bi dañ lay xupp napp la ci eh. sa morom newu fi mooy nekk fii daan da ngay a waaraateeg sa wax yi ñun duñ sa morom say morom yi bàyyi la ñu xam nga sénégalais dafa gaaw ci sa moromu bàyyi la sa moromu ndey la saa su ne yi may ànd mag suñu nekkee fii ci réew mi dama naan fii de bu ma fi nekkee ci Sénégal gii nekk fi ak yéen ku fi sama moroomu baay sama baay nga sama moroomu ndey sama ndey nga samay tante samay maam ngeen samay nijaay d'accord mais loolu mu ngi yem Sénégal su ma xësee ba yegg yéen Makka doxatuma ci ay sentiment yi samay nijaay nga ak sama bàjjen nga ak sama magu yaay nga ak sama tante nga ak sama déedéet li may dox mooy dafa am lu ñu fi indi objectif bi lañu ñu bëgg a aj màkka la ñuy def fii moom ñoo fii ñoo leen fi yilif ba aj gi jeex li ngeen di def jeex suñu paree nag ba aj gi jeex kuy suñu tànt ñun la tànt kuy suñu nijaay nijaay papa bàjjen impañ kon gars yi it dañ doon jéem a napp yonte yu euh, wax mu wax leen li ba pare pour comme dañ ni ko woon suñu yàlla yee la laal ak di ko menacé mu ni leen fa kiidu ni jamian summa la tunzirun dama bëgg yéen ñëpp ngeen fexeel ma yéen ñëpp fexeel leen ma te bu leen ma sax ndànku bu leen ma sax may rëppi bu bu leen ma may sax fu ma noyyee pour ngeen xam ne faalewu ma leen loolu lu yéeme dafa am ci wax jooju gis nga euh, aad ñooñu aad dañu doonoon ay ponkal yoo xamante ni ku ci nekk ëppoon na deux mètres deux mètres cinquante trois mètres lañ doon tollu ci kaw nu ñu woon a dëkk ci ay néeg moo tax dañ daan yett yett euh, montagne yi foofu lañ daan dugg pour mën faa nekk foofu lañ daan dugg pour man faa nekk léegi nag Huud nekk seen biir te tollul ni ñoom moom doon nit ko yam moom non seulement amul yaram tollul ni ñu tol ba pare di leen défier gars yi ni mi kii kii kan la war a yab kii ñun lum ñu war a yabee rek ba ñuy def lii mu ni leen fakkee doo nii jami'an summa laa tun yéen ak seen ponkalaay ak seen yàlla yi àndandoo leen yéen ñëpp fexeel ma man faalewu ma leen ci lool man sama borom laa ragal mais du yéen mu ne leen ba tey sax ma dolli leen fa ajmiu amrakum wa shurakaakum boole leen seeni déem ak seeni daqaar mooy seen mbir ak ñi ngeen gëm ni ñooy seeni yàlla booloo leen yéen ñëpp ngeen jéem bu non seulement comme du ngeen ma mën a fexeel su ngeen booloo xanaa yéen ñëpp di ngeen ko man bu boobaa ngeen xam ni man fa ma wéeru kuy wéeru day seeti ginnaaw boroom dayo ya waxi cheikhul mu ni inni tawakkaltu ala man ci yàlla laa wéeru rabbi mooy sama boroom te ma nangu ko wa rabbukum mooy seen boroom ngeen lànk yéen man ci kooku laa wéeru kon wax dëgg yàlla ragaluma leen de ragaluma leen ragaluma seen pexe mu ni leen dégg leen ni maa min daabatin amul dara luy dukkat ci kaw suuf si illaa huwa aaxidun bi naasiyati lu dul yàlla mooy mooy téye ca càmbarga ga maanaam fii kawar gi jëkki fii moom la ñuy wax bi ka bi sax si sa jëtte nekk sa ndorteelu kawar foofa la ñuy wax càmbarga nee na mooy ki nga xamante ne mooy téye foofu moom borom mooy téye it seen nos yi di leen jëme fa ko neex moom borom bi subhanahu wa taala inna rabbi sama borom de ala siratin mustaqimin mu ngi ci yoon wu jub xocc yàlla ne yàlla moom newul ci yoon wu cikkiñ cakkañ demul gauche demul droite yàlla moom fi mu ne dafa leer naññ te moo nekk ci yoon fa bu ngeen dëddoo nag nekk ci lu leen neex ah yàlla moom ku maandu la ku def lu baax mu fay la lu baax ku def safar mu jox la saf mu walla la nga def mu ne bu ngeen dëddoo lànk lii fa qad ablagtukum maa ursiltu bihi ilaykum man dey gaaral naa leen wax naa leen jotal naa leen li ma yàlla waxoon man mbir mii ma yor lantinoor laa ci rek lantinoor lantinoor du tey diw day jàll lantinoor du tey diw mu ni kon man lantinoor laa rek man dañ ma dañ ma jàllale da dañ ma am lu ñu déposé ci woon ci woon ci lu ñu ma joxoon dinaa ko wàcce rek wàcce naa ko su ngeen lànkee nag ba nekk ci lu leen neex yàlla moom ah, mu ngi fi wa yastaxlif rabbi qawman xayrakum yàlla dina fi wuutal ñeneen ñu dul yéen jële leen fi yéen dina leen alak ngeen jóge fi mu indi fi ñeneen te nag wala tadurrunahu shay'an du ngeen kool mën a lor ci dara moom sama borom subhanahu wa taala mënu leen koo lor ci dara inna rabbi sama borom ala kulli shay'in ci mbir mu mën a doon xafiidun moo ci am wattu moo ko géréel boppam moo koy fuglul boppam te moo ko téyeel boppam moom borom bi subhanahu wa pexe mu ngeen def du dem mu ni ah ñu nekk ci loolu mu tàyyi ca histoire ba ni la wala maa jaa amruna ba suñu mbir ñëwee najjey naa dañoo musal huudan huud walladina amanu maahu bi rahmatin minna ak ñi gëm ànd ak moom ñoom ñëpp daal musal na leen mu jaar nag mu muccal nañ leen ci yërmande bu tukkee ci ñun yàlla dalay wan ni la mbir mi kenn du ci lenn de moom la yàlla dalay wan ni la huut la ko musal moom ci boppam musal ñamu àndal du moom sama yërmande la parce bu dul loolu nit dafa tàmm ah, waaw sant leen moom maa tax yéen ñëpp ngeen rëcc te déet yàlla nee na ku fi rëcc maa la rëcc bi rahmatin minna wa najjaynaahum yàlla nee musal ñu musal leen min adaabin ghalidin ci mbugal mu tar mu metti moo xamante ni ndaroon na wàcc seen kaw mu méttee métti mu ni watil aadu ñooy ñii daal ñooy aad ñoom de jaxadu diingatoon nañ bi ayaati rabbihim seen aayay borom yi wa asaw rusulahu ñu weddi yonent yi def ko au pluriel te benn yonent la ñu amul ça veut dire wa asaw rusulahu la wax dañoo weddi seeni yonent c'est parce que lislaam maanaam diine yàlla ji continuité la yonent bi day ñëw puus ko ba fii taxaw kii jële ko fii puus ko ba fee kii jële ko fee puus noonu la demee ba boo ko boolee mu ki lépp nag ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam tax ku ci mas a weddi benn yonent yàlla au lieu que mu ne da wa asaw rasulahu weddi nañ seen yonent danaan wa asaw rasulahu weddi na ab yonentam moom ñooñu aat ñoom looloo leen dal wattabaaw ñu topp am na kulli jabbaarin mbiru waajoo xamante ni dafa mbëru ba pare aniit di jaay fetteerlu ak doole mooy ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon dooni ponkal defee ne lu leen neex def ñooñu lañ toppoon mu ne nag waaye non seulement alag na leen waaye wa utbiu dinañ leen toftal fii hadihi dunya ci fii ci këru àdduna gi laana am ñu sori leen fi yërmande suñu borom subhanahu wa taala te nag wa yowmal qiyaamati bu yowmal qiyaame bu ñëwatee it ñu dolliwaat leen geneen toroxal ak geneen mbugal gu leen di xaar ci yowmal qiyaam ala waawee inna aadan ñoñ aad kafaru rabbahum dañoo weddi seen boroom alaa bu'dan yëgal ni sori yërmande yàlla alaa bu'dan yëgal ni alkande alaa buhdan yëgal ni torox torox ak yàqute ak loo yaakaar mu tas li aadin ñeel na ñooñu aad boo xamul ñooñu mooy ñan mu ni la xawmi huud mooy nitu huud ya nee na ñii mu lay wax mooy nitu huud ya waaw gis nga lii day taxaw taxawaayu badal gis nga maanaam bu fekkonte ni génne na aad sax wax ji mën na dem bu ko neexoon mu ne ala bu'dan li qawmi Huudin moo taxit bu ca aad nekkee dala wax ñooñu mooy ñan ba pare préciser waatal la ni la qawmi Huud ñooy nitu Huud yi mu tëj ñooñu seen histoire dugg ci keneen mu ne wax ila samuuda boo demee ca ñooñ samuuda aqaahum saalihan ñoom waa ju baax ju tudd saalih laa leen yónnee woon muy seen yonent maanaam kon pare na ci nuux pare na ci huud mu ngi ñëw ci saalih waaye nga dégg rek la ma la waxoon rek la waxaat qaala mu ne yaa qawmi yéen sama mbokk yi ubudullaha jaamu leen yàlla yéen sama mbokk yi maa lakum amu leen benn yàlla boo xamante ni su ngeen ko jaamoo jaamu nga jariñ su ngeen ko ñàkkee jaamu ñàkk jaamu nga lore xayruhu ku dul yàlla huwa moom anshaakum min al ardi moo leen amaloon moo leen sosoon ba fi dara nekkul mu amal ñu ci suuf mooy suñu maam aadama la njëkk amal amale ko ci suuf moo ñu sos ci ban ci suuf moom borom bi subhanahu wa taala ginnaaw gi nag ginnaaw aadama si lay sose sos indi xawa indi ku fi ñëwati nga am ndey baay ba yonent yàlla Isaa ñëw am ndey te amul baay boobu nag ba mu jeexee ba léegi nag leneen amatu fi ku ñëw ku fi ñëw am nga ndey am nga baay am nga ndey am nga baay mbokk yi loolu dama koy wax di ci insister dañuy gis benn xale bu jigéen ci ko ñu moom kat réglé na lool demul dikkul moom daal foo ko fekk mu ngi toog ci wetu yaayam demul dikkul ñu dem ba jëmmi jamono dégg ni moom kat jël na weer doon na jigéen wérul doon na ko ëmb nga dégg nit naan ah lii moom mbiru yàlla la ñëpp maandu kii mësul dem fenn déet déet boobu moom du jàll am na fu mu dem te ko lijjantee fàq yar dina wax fal la dem kon buñ dugg ci science loolu yàlla pare na ci léegi ku fi ñëwati am nga ndey am nga baay bokk yi ñu avancé mu ni xoola mu ni mu wax leen yàlla moo leen sos ci wastaamarakum fiha yàlla nee na moo ñu may ñu am chance su dëkkee suuf binduñ ci suuf ba pare dëkkal ñu ci suuf moo tax nit ki bu faatoo ndeysaan bu ñu ko dencee dencee ba pare ñu naan minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra ci suuf lañ leen bind ngeen dund fi ba xëy faatu fi fi la leen di génneewaat yowmal qiyaama mu ne leen fastaxfiruhu kon daal vraiment maa ngi leen di demander ngeen jéggalu sama boroom summa tuubu ilayhi te ngeen tuub gis nga kon la huud waxoon la wax la wax huud dafa ni woon tuub leen te jéggalu moom mu ni jéggalu leen te tuub kon benn bi la kon nga xam ne yonent yi daaw nag seen code benn kot la ñu yor ñoom ñëpp mu di leen kon jéggalu leen seen borom te ngeen tuub ni wax dëgg yàlla inna rabbi sama borom qaribun ku leen jege la mujibun ku leen mën a wuyu la su ngeen ko wooyee ah way Saalix moo rafet wax Saalix moo rafet wax nii daal la waxee gaa yi na leen ah wax dëgg yàlla dañ gëm yàlla xam nga wax dëgg yàlla Pape sàmba wax dafa bokk ci li koy rafet ci ci liy jox maanaa nit mooy di wax wax ju yiw te correct mun leen wax dëgg yàlla saalix daal lii de la leen wax nii nag li tax man ma bëgg ngeen tuub te jéggalu sama borom daf leen a jege te da leen a wuyu yàlla nee na wa idaa ta'alaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai idaa daan nee na boo la jaam yi di laaj anama nee leen maa ngi nii seen wet ku ma woo ma wuyu la mu wax leen loolu kon ni leen sama borom jege na léegi nag ñu xool lan la ko ay mbokkam moom saalix ñu ni ko ay saalix saalix yaa tas suñu yaakaar Salih de yow de xat kunta fii naa marjuwan qabla hada yow de avant ngay wax sa dégâts yii yii wax yu rëy yii avant nga koy wax wax dëgg yàlla ñun ku am yow gone gu amoon ci yaakaar ci moom nga yooyu nag dañ koy naxi nga wax dëgg ñu naan sëñ bi yow xale xale yu regleel yow wax dëgg yàlla yow ñëpp dañ laa mas a naw kon am na noo xam ne waroo ko wax dañuy bëgg nga bàyyi li nga war a wax. walla yow wax dëgg yàlla xale bu ñu amoon ci yow yaakaar nga kon am na façon waxin yoo xam ni euh, waroo ko wax loolu lañ doon wax yonent yàlla Saalix waaw yow day ku ñu amoon yaakaar nga waa Saalix yow it Saalix yow non seulement tas nga suñu yaakaar mais dang ñu yab nag Saalix yow xam nga xale bu yabaate nga waaw yow Saalix atanhaanaa moo ndax yow yaa ñuy tere an naabuda maa yaabuda abaana ñu ba ba du ñu jaamu li suñuy bàyyi daan jaamu yow yaa ñu koy tere yow yow yaa ñu mën a wax ni ñu bu ñu jaamu li suñu bàyyi daan jaamu xërëm la d'accord suñuy baay moom lañ doon jaamu seeni baay moom lañ doon jaamu ñun moom la ñuy jaamu yow yaa ñu moom yow Saleh te sax wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib yow li ngay wax yëpp ñun gëmuñu ko ñun dañu doon sikki sàkk di déngi déngi li ngay wax vraiment gëmuñu ci dara Saleh ñun dañoo gëmul sax ni yow yàllaa la ko wax problème majeur bi ñun dañoo gëmul ni am na yàlla booy waxal ndax ñun ñii lañ jàpp ni ñoo yàlla kon Saleh may ñu xoola mu ne yaa qawmi yéen sama nit ñi araaytum dama leen di laaj soloo leen ma in kuntu ala bayyinati min rabbi mais man su ma amee lu leer naññ ci sama boroom yàlla jox ma lu leer ma xam ne lii mooy dëgg mu leer naññ wa aataani minhu rahmatan yàlla dolli ma jox ma yërmande def ma yonent boole ma ci ñi mu yónni yàlla defal ma loolu wa aataani minhu rahma mu ni fa man yansuruni min allahi in asaytuhu ana kan moo may dimbali ci yàlla su ma ko moyee ba bàyyi lim ma fi sant gis ngeen yéen wax dëgg yàlla doxu leen fa ma tasiduuna ni xayra taxsirin yéen dolliwu leen ma lu dool pert yéen su ma leen toppee damay al damay pert coow la bari ñun ko léegi d'accord sax léegi léegi indil ñu kéemaan buy tax ñu gëm la mu ni wayaa qawmi yéen sama nit ñi haadihi naaqatullahi lakum naag ak yàlla gaa ngi benn gilleem goo xamante ni moom lañ fa indi woon mu ni gilleem gaa ngi yàlla nee na mooy seen kéemaan gilleem ga nag charte bi mooy bi ko fa yàlla indee tey dañuy naan suba mu naan mu leen bis bi muy war a naan yéen du ngeen ci naan moom bis bi ngeen di war a naan moom du ci naan muy gilleem gu yéeme mu leen kon nag fa fadaruha bàyyi leen ko tàqulu fi ardillahi muy lekk ci suufu si yàlla si muy lekk ci li fi yàlla indi wala tamasuha bi suu in bu leen ko laalee lor bu leen laal gilleem gi su ngeen ko defee fa yaqudakum adabun qaribun mbugal mu soriwul dara mu mbugal mu jege dina dal ci seen kaw bu ngeen duggee ci loolu bu leen ko def fa yaqudakum adabun qaribun mbugal mu soriwul dina wàcc seen kaw waaye malheureusement fa aqaruha ñoom ñu tàyyi rey giléem ga fa qaala tamattau fi daarikum salaasata ayyam mun naa ah, def ngeen l'irréparable yéen li ngeen def kenn mënatu ko corriger waaw li ngeen def kenn mënatu ko defar yàq ngeen lu rëy yàq ngeen lu garaaw tere woon nañ leen geen def kon nag bu boo ngeen bànneexu ci seen sa suuf si ñetti fan waaw ñetti fan de laa xam ne moo leen fi des boo demee ci xurtu bi nee na daf ko def mbooloo parce que ki ko def bi koy def ñe xudaar ibnu saalif lañ koy wax waaye ñeneen ñëpp dañ ko jàppale ñëpp dañu ko wan ko defal moom mooy moom la yàlla ni idim baasa ashqaha ki ki def mbir mi act bi mooy c'est le fou du village am na ñoo xam ni dëkk bu ñu ne ñoo fa gën a rakkaaju dégâts bu ñuy def ñoom lañ koy defloo ñuy gangar gangari waa li kenn sañu la def maa ko def kuy def lu kenn sañu la def dof nga nan la yóbbu hôpital faji la moom looloo ko dal moom looloo ko dal li kenn ñemewul naan waaw lu kenn ñemewul maa ko ñeme ah yaa ñeme lu kenn ñemewul moo tax di nga gis lu kenn dul gis mu ni loolu dal leen saalix ni leen toog leen ñetti fan rek waaw yéen daal ñetti fan moo tax borom xam-xam yi nee na àllarba lañ ko rey alxames ajjuma ñu toog ak samedi muy ñetti fan yi altina yàlla indi alkande seen kaw ñoom ñëpp ñu torox dee zalika lii dey waadun xayru makzubin nee na lii dey benn rendez-vous boo xamante ni kenn mënu koo faussé munu ne fa lamma jaa amruna ba suñu mbir dikkee nag nag jey naa ñoo musal saalihan saalih walladina amanu ak ñi gëm maahu ànd ak saalih bi rahmatin minna ci yërmande bu tukkee ci ñun inna rabbaka sa boroom huwa moom alqawiyu mooy ki not ci kattan waaye al azizu mooy ki deñ ci moo të dara umb ko mu ni wa axada alladina zalamu assayha fa asbahu fi daarihim jaathimin gaa yi tooñoon daal mujjewuñu lu dul ndeysaan yàlla yunni xaacu ga xaacu ga yegg si ci ñoom ñu faatu nee na boo leen fekkee seen néeg ñu ngi ni lasiim taanu mënatuñu dara dee dee gu ñaaw mu ni ka allam yax naw fiiha dañoo mel ni mësuñu fee dund ka allam yax naw fiiha dañoo mel ni ñoom mësuñu fee dund ndeysaan ndax dee gu ñaaw mu ne ala inna samudan yëgal ni waa samud kafaru rabbahum dañoo weddi seen boroom bañ ko weddee ala bu'dan li ma ne yàlla na sori waa samud ndax ñoom it li leen dal kenn tegu leen ko lu dul weddi ga nga xamante ni weddi nañ ko seen yeneen mu tëje foofu histoire samud ñooñ samud muy ñi nga xamante ni saalix lañu yoon ni woon ci ñoom kon dañuy ànd ak yéen service commercial jàllale publicité suñu paree ubbil leen téléphone incha allah kon macha allah mbokk yi kon ñu ànd ak yéen ma ñaan waa Régis ñu affiché leen numéro téléphone yi rek incha allah ñu jël ñaari téléphone ñett rek bu dee xëj na fi incha allah mbokk yi kon mu ni waa Samud ñoom it dañoo weddi seen boroom waaye bañ ko weddee alkande dikkal leen toroxtaan gi dikkal leen ñu faatu comme ni nga xamante ni ñuy weddi woon yàlla dikk ak ay mbiram ci ñoom ma jeexale ko Samud kon tey am nañu Huud am nañu Saalix maanaam am nañu waa kër aad am nañu waa kër samuud suñu fi waatee suba nag ñëw nag ci nit yonte yàlla luut ya ak seen mbir ak malaaka yàlla yabaloon la ñu def ak fa ñu ko jaarale bu baax a baax a baax waa régi bu dee da ngeen di nelaw ngeen yeewu affiché nit ñi numéro numéro yi bàyyi leen nelaw bi macha allah mbokk yi muy lu am solo tey lan la ñuy jàngat ci histoire ñaari yonent yi soir ñoo yaari jorente yi waneen na la ni wan na la ni ñii ñu am courage lañu mais ñu mën a ñu maîtriser seen sujet lañu ñii ñu maîtriser sujet bi ñu yor lañu loolu dafa am solo mbokk li ngay wax xam ko dafa baax benn ñaareel beet wane na ni ñu am sago lañu ñu am sago lañu nekkuñu ñu in ñu tubaab boobu moom mënuma ko wax ñu kenn mënta perturber lañu hmm. kenn mënu leen a perturber parce que gars yi dañuy dox ci sa xel yenn saa yi bul la bëggee jaxase di la sosal di la waxal di la menacer waaye ñoom loolu perturbé wu leen déedéet dañu ni tekk gars yi dal seen kaw wax leen lu leen war ta wax dépassé leen waaye ñoom ñu ni rek li am solo mooy lii leen yàlla yónni moom dinañ ko yóbbu ak lu leen ci fekk ak lu leen ca mën a fekk moom na yegg rek moo tax ndeysaan gars yi yàq xas nañ leen jéem nañ leen a wàññi jéem nañ leen a toroxal jéem nañ leen mais ñoom loolu dérangé wu leen dérangé wu leen ñoom li leen amaloon solo mooy lii leen yàlla sant mission bii mu leen jox yóbbal gii mu leen wax ni leen yóbbu leen ko ñoom li leen ñoroon mooy nañu def li leen yàlla sant boo jëlee histoire Thamud da ngay gis ne ñoom dañu doon def lu garaaw dañu doon jéem a dox ci xelu seenub yonent xamuñu ne ab yonent yàlla da koy pareel ci lépp parce que ku la wax wax ju leer wax ju sérieux wax la li yàlla wax yàlla kat moo ma yónni ci yéen yàlla nag war ngeen a xam ni wax dëgg yàlla li mu bëgg mooy ngeen jaamu ko te bu leen ko bokkaale ak kenn parce que amu leen fi beneen yàlla moom moo fekk ba ñu amul mu amal ñu moom suñu borom subhanahu wa moo ñu dëkkal ci suuf si ñu nekk fii ci kaw suuf nekk fi ni ñu fi nekk mu ni loolu borom bi subhanahu wa taala moo ko def kon nag wax dëgg yàlla li ma leen di ñaan mooy ngeen jéggalu ko te tuub waaw parce que l'erreur humaine nit dafay def ay njuubte mais xalaat leen def leen prise de conscience ngeen dellu si ñu ànd jéggalu suñu borom tuub yàlla baal ñu li tax ma wax leen nag ni loolu mën na ne mooy dama xam ne yàlla ku ku leen jege la yàlla mi ma leen di wax sama borom dafa jege lool te dafa mën a wuyu ko koy woo yaa man yujibul mutarra ida daa góor mag góor daan nañ ko wax borom bi nan ko yow de yàlla yaay kii mën a wuyu ku loru su la ni di nga toll foo xam ne yàlla rek a fa des yàlla rek a fa des jigéen ñi buñ fa tollee ci mat xalaatuñu kenn ku dul latif yaa latif naa leen xaw ma lu jigéenu senegal mënul ci tur yàlla de waaye yaa latif moom mën nañ ko parce que dañ koy woo bu ñu jaaxlee nit a jaaxle nekk ci diggu géej fitna am fa foofu yàlla rekk ko fa mën a génne nit a ngi toll ci ay situation nekk ci moment yu difficile yoo xamante ni ku mu fa woo mu génne ko fa ku dul yàlla rek du ci génn yépp nag saalix wax leen ko ni leen wax dëgg yàlla moo tax ma bëgg ngeen jaamu ko ñu ànd ngeen tuub jéggalu li ngeen defoon moom borom bi xam naa li ma xam ci moom non seulement bu ngeen jéggaloo dina leen baal mais lu toll ni la ngeen amoon ci bàkkaar ci bàkkaar yi bokkaale loolu lépp lay defaat ay tiyaaba jox leen loolu dalaa leen di woo léegi nag ñu ni nañ ko jël par les sentiments pour nax ko bi mu waxee ba pare ay saala yow tas nga suñu yaakaar de loolu façon waxin la boo xamante ni ku la ko wax bu mu la perturbé ah yow moom yow yow de wax dëgg yàlla saalix bett bett nga ñu lool de asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Gaye. waaw kooku. kii def sa benn yaay la daal. Hmm. dama la sopp macha allah di di kontaan ci li ngay def. Ah, ma ni woon tey nag naa la woo vraiment wax la ko. ndokke laay la ci koor gi. jërëjëf maman Adama leen kontaan nañ ci loolu macha allah. yàlla na yàlla defal leen jàmm. amiin waaw sama yaay booy nag bindu tey bi lan nga ci jàngat lan nga ñu ci mën a indil sa contribution. ah man nag <laughs> dama ko jël nag en dama daw ñëw rek fekk fekk la ci télé bi ma ni ah sama doom ji de tey génn na ma ñëw woo ko. daal di koy ndokkeel dëgg dëgg di leen encouragé li ngeen di def moom. Mhm. yombul yal na ko mhm. yàlla woyofal. te yàlla may leen euh, mhm. vraiment fan mu gudd. waaw yéen a ngi ñuy defar bu baax a baax a baax. ok. waa kay macha allah suñu yaay jooju ñu kontaan ci moom moom it ziar ko bu baax ñaanal ko jaar ci moom sama mama yi yëpp nag ma ziar leen macha allah mama Nafi Korea maa ngi koy ziare mama Sini Jànka maa ngi koy ziare man nag xam nga sama yaay sama yaayu bopp yaayu Adja Fatou Niang macha allah di sama jaati gi fii ci Dakar sama yaayu Dakar maa ngi koy ziare ziare ni tabarakallahu sama yaay yëpp nag macha allah seen cofeel ci ñun xam nañ ko seen. seen seen seen fonk ñu xam nañ ko fu ngeen mën a nekk yaay njóoba kañ ñu koy ziare ah sama yaay yi daal te daal sama yaay yëpp ziar naa leen rek ziar naa leen jaarale ko ci mama bi génn nii yal na yàlla defal leen jàmm yal na yàlla defal leen tawfiq macha allah yal na yàlla sàmm leen aar leen ngeen yàgg fi wéttali ñu bu baax a baax kon ma ñëwaat rek ngeen gis nga Salih jaay ni ko Salih yow bett nga ñu Salih yaa mën a tas yaakaar asalaamaaleykum wa ah bisimilah. bisimilah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw bisimilah kooku. Ah, sa sa sa papa Sega Diop. ah Sega maa ngi lay ziare Diop maa ngi lay ziare. ñu ngi lay ziare Guèye moom na nga def yow ziare sama yaay waa Ndakaaru yëpp nag waa Fane ak yëpp maa ngi leen di ziare. waa Fane yëpp ngi jàkkaarloo ak yow. tabarkalla ziare nañ allah. sa yaay yëpp ngi jàkkaarloo ak yow. macha allah ñu ngi leen di ziare di leen wàcc seen wàccuwaay. ngi lay kontaan lool ci di la dégg ci waxtaan bi. jërëjëf Diop jërëjëf Diop jërëjëf. Eh, wax bi waxtaan kàlla ñu ngi koy déglu bu baax di koy dégg bu baax it. macha allah ziar nañ leen. di rek loo si wax rek yàlla nañ si dégg te jëriñoo ko. amiin yaa rabbal alamin amiin yaa rabbal alamin. sallallahu alayhi na sallam. sallallahu alayhi wa la yàlla gën a barkeel uh, xam-xam bi te wéral ko. amiin yaa rabbal alamin. te yokk te yokk ko lool. amiin yaa rabbal alamin amiin. fan ngi kontaan si yow xaaral ma jox la sa ma ma jox amin. bismillah. Baye. ah tante maa ngi lay ziare sama yaay booy maa ngi lay. ziare waaw Kën Gueye ngi lay ziar. mbég mi mbég mi ngi toog la seetaan. tabarkalla mbég mi tabarkalla macha allah. toog di seetaan sax moo gënal ngi lay ñaanal Gueye yàlla na yàlla yeggale sa ndaw nii yoon. amiin mbég mi amiin amiin maa ngi jaar ngi maa ngi jaar ci yow ziare sama tante sama nijaay yi ñëpp rek macha allah. waaw Kën Gueye ah, moom kay jërëjëf mbég mi. waaw macha allah kooku di suñu tante bopp macha allah ba ñu nekk tout tànk euh, Sina Ali ñu indi ñu fii Ndakaaru ñu fi jàngi ci loxoom lañ ñu tegoon suñu yaay ji doon wax moo ñu tiim moo ñu sonn ci ñu am xam-xam macha allah mbeng yàlla yàlla fay ko ak suñu tante yëpp nag am na na kenn ku ma fa nuyuwul moom xam na xam na boppam nuyuwuma ko bu ma fay ñi ci des ñëpp nag sama tante yu foofu yëpp nag ak nuyu naa leen macha allah yàlla na yàlla fayal ñu leen. mbokk yi ma ne lu garaaw am foofu lu garaaw ñu naan ko waaye ah, Salih yow tas nga suñu yaakaar de Salih yow ni ñu la yaakaare woon mbaax nga ñëw wax fi sa dégâts yi sa wax yu rëy yi fekk sa moroom yi baay di jaamu lii yàgg ci nga naan leen ay ay dulli ah yow yow Salih yow yow yow yow mën nga tas yaakaar mën nga tas yaakaar Salih maa ngi jéggalu nag mbokk yi nga xam toujours dañu may wax ni dañuy bëgg dugg bu baax a baax ci ligne bi dañ ciy ne waaye du ñu yegsi rek du ñu yegsi waaye jombul bis dinañ dinañ mas a yegsi ndax li ñuy ubbi ci téléphone bi moo dul bari ndax dañuy bëgg rek avancer yéen ci tafsir loolu rek la ngeen jéggal ñu ko nag bu baax xam nañ ñi nekk ci ligne bi saa yu ma génnee toujours dañ may woo di ma wax ni ma dañ nañ lu pour dugg waaye mënuñu dugg yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla barkeelal leen yàlla yàlla fay yàlla yàlla barkeel kon ñu jàpp ni daal tey jeexal nañu histoire yonte yàlla Huud ak histoire yonte yàlla Saalih kon bu ñu ñëwaatee suba dañuy ñëw ci Ibrahim lenn ci histoire yonte yàlla Ibrahim lenn na ci histoire am nag laa wax mais jàll mu jàllale ñu ci yont yàlla luut foofu lañ jëm bu jeexee xëy na dina am beneen yonent bu ci teg wala kullin daal suba daal ñu ngi door bu ñuy dugg rek Ibrahima la ñuy duggee jàll jëm ci yonent yàlla luut ak la ca xew ak la ca borom ba dogal subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla defal dégg yàlla ñu yàlla defal topp yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu dégloo waxtaan seen la ca ëpp njariñ ñu jariñoo ko yàlla nañ ko suñu borom defal ñi nga xam ne waxtaan wu ñu dégg daal la ca ëpp njariñ la ñuy jël jariñoo ko yal nañu yàlla boole ca ñooñu rëcc rëcc buñ ci am yàlla nañ ko suñu borom jéggal du rëcc rek yàlla xam na ni du lu ñu bëggoon waaye noonu la demee kon nag ñu ngi koy jéggalu ndax liggéeyu doomu aadama moo matul toujours day laaj ay mottali ak i defar rawatina téere yàlla bi dafa jafe lool dafa jafe yéen ñuy ñaanal yàlla buñ ci wax lu ci bokkul yàlla buñ ci waxee bakkan yàlla buñ ci waxee ngir suñu intérêt bopp nañ ko wax ni ko yàlla waxee rek wala fa ñu ca xam la ca xam-xam toll te ñu yem foofu bañ caa dara lu ca bokkul aqulu qawli hada wa astaghfirullah lii wa lakum wa li saa'iri almuslimina fa astaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh